waxu Muusaa Siri la tàbbee ca mbéx ma boobe la mootule way asiru neema waxu Muusaa Siri la tàbbee ca mbéx ma boobe la mootule way asiru neema

Mbaaxu Moussa. laylalaawoo kàmmee ca Mbéx Mbaax. laylalaawoo kàmmee la motule. ilala layla ilala Mbaaxu Moussa si. kàmmee ca Mbéx Mbaax. boobee la motule way. asiroo neex ma. Mbaaxu Moussa. laylala. ca mbeex ma laylalaawo belo mootule ilalaa waafu mosaasi na dambe ca mbeex ma bamba belo mootule way asiru nexma Sëriñ Bamba Ahmad Sëriñ Bamba Ahmad monu terere monu terere dem kon nag moom ilala la ilaha illallah bamba ahmadu ahmadu mamadou ahmadu bamba kon kon moom kon day ñeppay def na Muhammadu Bamba bi muy ñëw duniya bagaaña donoore diñ si fi nekkoon illa la bi mi ñëw dunya Ahmadu Bamba gaay dañoo ree Ahmadu Bamba Serigne si fi nekkoon dabawoon danga xanaa Muhammadu Bamba bi mi ñëw dunya bi mi ñëw dunya bagaañu dañoo ree gaay dañoo ree si fi nekkoon illa la la illa la bi mi ñëw dunya Ahmadou Bamba gañe deyoore Ahmadou Bamba sëriñ si fi nekkoon ca baaxoon dandaanoo mu ñëw woote ak njébbal akuk muri mooy laxasaayu di daanu ay leer. mu jëm woote ak njëbbal ak gu murito. murito. dong ngay laxasaayu di daanu ay leer. la bari la wax woo na waa jéege yaa la bari la wax woo na waa jéeg yaa la bari la wax woo na waa jéeg yaa la bari la wax woo na waa jéeg woo waa jéeg ji wuy si noonu waral la la Ya jébbulu nan ca du jiwiir wiir waa géej gi wuy si nanu waral mu dem géej dem géej jëm na yaa jébbulu nan ca du jiwiir wiir ma dugg doon weer ci biir weer yi kon mooy ramadaan ramadaan weeru mbekk weeru ramadaan weeru fay daraagalaan doon weer ci biir weer yi kon mooy ramadaan ramadaan weeru mbekk weeru njëgal di weeru fay daan mu doon wurus ci wurus yi kon mu di marjaan yàqut mbaalu nu yéeneek ginnaaw. bu doon wurus di wurus yee kon mu di marjaan. marjaan mbaa yàqut mbaalu nu yéeneek ginnaaw. mënoo baayu fàllilu laay way maami soxna mbeen. aaru góor wu ñu dawal mayaar du ko seen. baayu fàllilu laay way maami soxna mbeen. soxna mbeen aaru góor wu ñu dawal du ko seen seex Ibra Faal dëgg benn sigiib gis basar na ba mahfuus fépp la ilaha illallah seex Ibra Faal dëgg benn sigiib gis basar na ba mahfuus fépp lay seex Fallu Faal seex Ibra Faal dëgg benn sigiib gis basar na ba mahfuus fépp la ilaha illallah Seex Ibra wallaay géej ñu ca tabee sa fépp day nii waaw baa di ca tabee day nii Tuubaa di këru texe Sëñ ca tabee day nii dikër waa walla doon na si yaakaar ne ju ndax boo nga lambee sa fépp lay ne Touba di këru texe moo nga jara yaakaar géeju ndax boo ca tabbee sa fépp day nii waa wallaay Touba di këru waa wallaay moo jara yaakaar géeju ndax boo ca tabbee sa fépp day nii Touba di këru texe moo nga